bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyai wal mursalin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi din euh, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam boobu di asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nu fas yéene dugg ak yéen ci sunu jataayu ñaareel ci tomb bi ñu doon waxtaane mooy ni ñuy dunde yoonamu murit tey ñu indi woon nag tënk bu gàtt ci lenn rek ci li Serigne Touba bind jàngal ñu ni nga xam ne noonu la tabaxee liggéeyam bi ak lenn ci ay melokaanam yi nga xam ne bind na ko bàyyi fi ak lenn ci nim yare woon mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak moom ak lenn ci ni nga xam ne noonu la yare woon doomi boppam yi ñu gis ne loolu mooy dëgg-dëgg yoon wa ndax manees naa wax ni euh, liggéey bi muy yoonu murit duñ ko bëgg a ba gën ko ko bëgg moom mi ko tabax waaye duñ ko xamit ba gën ko koo xam kon day mel ne lu ci dugalul rek mëtu caa def waaye lu mu ci dugalil mëtu caa génne tey nag bu ñu xoolee man ci sama gis-gis ni ñuy dunde dafa mel ne ñetti xeet lan duñ ne dara baaxut waaye duñ ne lépp a baax am na ñoo xam ne ña nga ca yoon wa fii nga xam ne fi la sëriñ bi jaaroon jaarale fi ñooñu am na ñu jaar foofa am na ñoo xam ne it wàcc nañ yoon wa wan ko ginnaaw am ñoo xam ne nag ña nga ca yoon wa waaye dañoo doy loolu doyut dañoo taxaw foo xam ne sëriñ bi bëggoon na ñu weesu foofa ba noppi ñu def ko ab yemukaay mu mel ne euh, kuréel bu njëkk bi te maa ngi wax ci euh, ñun taalibe yi ndax ni mu amee ñetti xeet noonu la ñi ñi ñi toppit amee ay xeet am na ñetti xeet ci ñoom ñoo xam ne ñoom it ña nga ca yoon wële am ca ñoom ñu ko wan ginnaaw am ca ñoom ñu taxaw foo xam ne it du taxawukaay bu dee li aju ci taalibe yi day mel ne kuréel bu njëkk bi kuréel la boo xam ne xeet la wu mat sëkk boo xam ne la yonente bi alayhi salaatu wasalaam doon wax alfirqatu naajiya ci xeetam wi naka noonu mënees na koo wax alfirqatu ya ci biir yoonu murit am na ci kuréel boo xam ne kuréel la bopp la ñu nekk mooy la sëriñ bi bëgg mooy ñi nga xam ne ñi ngi boole diggante alxuraan taxawaay bañ ca war a taxaw ñu taxaw ko nañ ko war a jàppee ñu jàppe ko noona nañ ko war a jàppuloo ñu jàppuloo ko noona naka noonu seen diggante xasida nañ ca war a taxawee ña ngi koy taxawee nañ ko war jàppe ña ngi koy jàppe noona boole nag yi nga xam ne dafa bokk ci liggéeyub sëriñ bi te mënu cee ñàkk muy alxidma al ibada yooyu nga xam ne dafa fees dell ay mbindam nga xam ne ay ay ay ay ay ay mbir yu am solo la yoo xam ne buñ delluwaatee dégg ga ca sëriñ bi amoon wala dégg ga ci borom xam-xam yi di jàngate ne mooy déggu sëriñ bi ca loola am na solo lool ci lislaam ñooñu ña nga ca yooya ndax soo jiitalee sàkku xam-xam doo ko jëfee jëfe nga ndigalu Cheikhul Xadim fa qaddimu taalluman ala al amal la wax su ngeen ragalee gàcca su ngeen ragalee kersa na ngeen jiital xamlu doog caa teg jëf kon bu rikk bu jiital jëf wormaal doomu aadama yépp wa raaci fi kulli xalqin man xalaqa la wax kenn ku nekk rek nanga sàmm ci moom ak yàlla mi ko bind du ñu wax lu ñaaw boole ko di dimbalante ci albirru wa taqwa wa taawanu ala albirri wa taqwa ñu koy jëmmal ci seeni jëf di ko jëmmal ci seeni wax boole koog di soppante ngir jëmm yàlla di soppante it ngir pas-pas bi leen yeew ci sëriñ bi boole koog wóolonte boole kook soril bañ a noonoonteeg képp koo xam ne mu ngi génn ci làmmiñam baati sere yi loolu day delluwaat ci njàngaleem Cheikhul Xadim wala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa mu mel ne ñooñu mooy borom jikko yi nga xam ne li ñuy wax asxaabu bu ñu seet ku jikkoom rafet dëgg ci ñooñu lañuy ñuy dem bu ñu seet boroomi teggiin ci ñooñu lañuy dem bu ñu seet muñkat ci ñooñu la ñuy dem bu ñuy seet ku uh, gërëm loo dogalub yàlla bu ñuy seet koo xam ne adduna bëgg àdduna déewut ci ab xolam ndax xubbu dunya rësu kulli xatia bu ñuy seet koo xam ne ragal na yàlla kem kàttanam bu ñuy seet koo xam ne yaakaar na yàlla dëgg-dëgg yaakaar ci ñooñu lañuy dem ndax melokaan yooyu mu ngi ci ñoom ñu nga xam ne ay jëmm lañuy doon yoo xam ne seeni jikko soo ubbee masaalikul jinaan ba gis jikko yi Serigne Touba jàngale wane ni ñi mooy lii mooy jikko yu mat yi lii mooy jikko yi aarifuna billahi da nga gis ñoom ñu jikko woo jikko yooyu waaye boo xoolee seeni melokaan it day mel ne boo ubbee xuqal bukaau melokaan yi sëriñ bi di melal al qawmul mutasawifa fa dangay gis ñoom ñu meloo melokaan yooyu waaye ñu am ay màndarga nag yoo xam ne ku ne leen jàkk rek moom nga leen di ràññee mu doon ay mandarga yoo xam ne day mel ne boo ubbee nahju ju il haaj da ngay fekk mandarga yooyu di jëmm ci ñoom ñooñu mënees leen a mënees na leen a wooye al firqatu naajiya ndax fa mag ña tegoon seen tànk ci topp Cheikhul Xadim teg nañ ko fa mooy gëm yàlla gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaayanteeg sëriñ bi topp ci moom di jiital nag ay ndigalam te bañ jiital seenu bëgg ndax sëriñ bi daf daan jiital njàngaleem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doo caateeg ak bëggam waaye daawul jiital ak bëggam ba tax mu ginnaawal am njàngaleem loolu lu am importance lañu xam ko ñooñu mooy kuréel bi nga xam ne am mi ngi am ba léegi bu kenn amut. am na ay jëmm yoo xam ne ay murit lañ te ci noonu la ñuy dox fa sell fa dayoob sell àgg fa lañ àgg seen kem kàttan ñu ngi koy xeeñtu mboorum sëriñ bi doon ñoo xam ne dañoo boole di dund sharia ak xaqiiqa ci loolu la sëriñ Tuubaa liggéey lim liggéey isabtada dal muridu bi tawhidi wal fiqhi an tasawufin majidi tawhid fiq tasawuf nga xam ne moo ëmb li ñuy wax as shariatu wal xaqiqatu ñooñu ca nekk te am murit la war a tàmbalee jéegu mu njëkk tawhiid bu ñaareelam mu def ko fiq bu ñetteelam mu def ko tasawuf ñooñu ñu ngi am ba léegi kuréel boobu yi gàcce ngalaamaa ñoom yoon wi jaarit yal na ci yàlla saxal te yal nañu yàlla boole ci ñooñu am na it nag kuréel boo xam ne agguñ ci wan ginnaaw la sëriñ bi digle woon ak la mu woote woon waaye taxaw nañ foo xam ne du taxawukaay la sëriñ bi doon séentu it ëpp na ci ñoom loolu xëy na kekke gu tasawuf kekke seenu dégg ci tasawuf bokk na ci la leen war ba loolu am mooy kuréel bi nga xam ne li ñuy wax at tabattulu waddaa maanaam li li ñuy wax semence nga xam ne doo nangoo liggéey def toog muy métier am na ci sunu biir te loolu sëriñ bi doon na ko moytandikuli fadaatun wa raaxatun lan yusira shaxshan araada an yakuna musira nee na ñaar yooyu adduna rek bu la taxee jug eh, nga nga yaafaaral bañ a liggéey du tax nga am adduna rawatina bu la yàlla taxee jug te ku ne xam na ni ku am yàlla ku ne am nga adduna waaye am adduna nag taxut am yàlla ndax bu am adduna doon taxa am yàlla yéefar gëm yàlla am nañ adduna ba mat sëkk waaye ñi am yàlla ñëpp nag am nañ adduna looloo tax ñoom ñi am yàlla ñuy wax ni leen adduna jublu see ak nañ ko wane ginnaaw aqbalati dunya ilaya qablu wa biatuha fasala anni qablu ba ab yaadee jeex ak ta tawran tajini wa tulini jawaisaha wa taaratan liya tuhdini bil busharati kooku am yàlla mooy tax àdduna di la baagante noonu bëgg laa jox boppam kuréel boobu nag muy ñii nga xam ne foofu la ñu nekk day mel ne dañoo topp li ñuy wax ruxsaat yi maanaam ruxsa yi moom lañ topp di ci dund ba fàtte yi nga xam ne da leen a war ndax lépp loo xam ne luñ la may la luñ la jàpp ndalal la te nga am kattanu kattanu def la ko féete kaw defal la ko féete kaw bala mu laa indil ak yaafuus ñu baree bari foofu la ñu waroo day mel ne li ma doon wax léegi day doon kuréel boo xam ne daanaka seenu jàpp xasida yi moo leen julal ñu tongu alxuraan wan ko ginnaaw te loolu wuuteeg ndénkaanul sëriñ bi sëriñ bi sunu digg ak alxuraan da cee dénkaan ay ndénkaan yu ama am solo di sàkku ne képp koo xam ne murit nga bu wéeru ci moom bi ko sunu borom joxee ndigal ne ko wooteel xam le ne kaaraange laa la ñëw leen wéeru ci man ku di murit wéeru ci moom nee na na saxal jàng alxuraan kon nag soo askanale sa bopp ne yow am murit nga bëgg a tongu alxuraan ci tayeef benn muy ak réer wala ak réer réerlu su dee danga ko réere woon wala yàlla xéewale suñu jataay bi nga bàyyi xel ne sëriñ bi nee na ngay jàng alxuraan su dee danga ko doon réeree réereelu nag jàppal ne mënatoo defal sëriñ bi lu ko gënal nga jiital ndigalam loolu kullu muridin bi yaluudu fal yudim tilawatan li xayri dikrin xadru sim ba day wax ne walaw salaasatan min al ahzab donte ñetti isib la par bis sax boo ko mënee jàng dee ko jàng booy xool li nga xam ne bokk na ci li ëpp solo ci liggéeyam bi muy werd wi nga xam ne almaaxusu min allahi bi wasitati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam muy wird wi nga xam ne moom la ko boroomam joxal boppam mu di mu doon ko jox mag ñi ñu ci ñu ci ñu koy liggéey mu di leen àggale ci yàlla charte da caa boole jàng alquran bis bu nekk kon sëriñ bi soññe na lool jàng alquran kon boo jàppee xasida yi ba tax nga bëgg tóngu alquran loolu njuumte la duñ ne la nag li nga jàpp baaxut amul lu ko gën sëriñ bi wax na ba tàyyi ne ginnaaw alxuraan moo féete kaw lépp te it gëm na loolu ñun ñuy wax ak yow waaye nga bàyyi xel ne sëriñ bi dalaa digal nga jàpp alxuraan boole koog moom kon day mel ne yaa ngi doxe benn tànk boo wanee ginnaaw alxuraan lenn ci ñoom it euh, la leen war mooy boo jàppee xasida di ko jàng dem ba loolu nga bëgg ko def daraja joo xam ne jàpp ne mokkal ak xasida walla nga fer iji ba mën a jàng genn xasida war naa tax ba yow waratoo doon kuy liggéey nga doon liggéey bàyyi sa mécc nekk sa këri waajur dëngook ñoom ngir jàpp ne yaa leen gën loolu ak woru la waaye du njàngaleem sayxul xadim nit mënta ñàkk am kilifa nit dafa war a liggéey yooyu mooy yam boo demee it ba njàng moom mi nga xam ne mooy njàng mi ngay jàng xasida gi muy durus bi nga jàppee sa bopp ne yow da ngaa bokk ci kilifa yi gën a màgg su boobaa gis nga sa bopp te lislaam xamul kuy gis boppam falaa tusakku anfusakum wa huwa aalamu bi man ittaqi bu leen sellal seen bopp yàlla rek moo xam ki sell kon saa boo demee ba gis sa bopp rek juum nga loo ci mën a yëg bu mu tax nga gis sa bopp soo weesoo gis sa bopp nag dem ba tax nga jàpp ne gën nga keneen booba yaa ngi fàtt ne ki lëggee xasida gi ngay jàng ba yëg lu tax nga jàpp ne am na kenn koo gën neewoon na kat ca wet ga boo jàppee ne yaa gën xaj sax xaj bee la gën waxuma laak nag nit fa kullu man yan yansuru fawqahu alkilaab fal kalbu xayrun minhu duna lirtiyaab ku jàpp ne yaa gën xaj rek xaj xaj la gën rawatina doomu aadama boo demee ba sa lisaanul xaal mu mel ne boo waree liggéey yi la ngay wax mooy naaxaar sëñ bi naaxaar sëriñ bi naaxaar xaside yi dëgg la sëriñ bi mënees na koo xaar xaside yi mënees na leen a xaar waaye bala ngaa sàkku dara wala nga koy yaakaar seetal yow taxawaay ba nga ca taxaw ba noppi sëriñ bi dañuy wax ne bala nga ko néggandiku seetal lim la digal ne la demal jàngi ndax jàngi nga lim la digal ci ne la demal jaamu yàlla ndax yaa ngi jaamu yàlla lim la digal ci ne la demal liggéey ndax yaa ngi liggéey yooyu yëpp nga wan ko ginnaaw seet la dëppoog sa bakkan nga xam ne ci kaw bakkan nga ko teg waaye boo ko tegee rek ci kaw ndigal yooyu ngay jiital nga wan ko ginnaaw nag ba noppi ne da ngay xaar sëriñ bi boole ko di woote li ñuy wax a as suuf ya nga xam ne am ci ñoo am ci ñoom ñoo xam ne day àgg ci daanaka jaamu yàlla dañ koy woyafal dootuñ ko nangooti dootuñ nangootee jaamu yàlla ma jàpp ne nag tolluwaay yooyu taxul ñu seen pëndub tolluwaay ba soyxul xadim tolloon te mësta woyofal jaamu yàlla sëriñ Moussa Ka am na fu mu koy junje dëggug Bàmba ga ak diineem ja bi jaaw ba yëkku ko te xam-xam ba ak maandoom ga am am ba yàqu ko kon day mel ne euh, am na fu muy wax sax bay wax ne te diineem ja ak maanaam nga sañ-sañ ba yàqu ko ba tey mhm. sañ-sañ ba yàqu ko maanaam sañ-sañam ak am-amam amul dara lum yàq ci ab xam-xamam wala ak jaamu yàllaam wala ak dëggoom te lenn lu ci nekk yit ci njëlbeenam la ko melowoo ba nim doone mag mooy tax mu ne la bi jaaw ba yëkku mhm. ko da ko da koo ñëwaale mhm. demaale ko te xam-xam te sañ-sañ ba yàqu ci dara am-am ba yàqu ci dara te ku ne xam na ne sañ-sañ ci moom la yem am-am it suñu borom da koo yéesaloon da koo yéesalaloon jamono ci buntu këram lu mu bëgg mu fekk si ko. kon nag buñ ko royee ci ci loolu sunu dëggu ak sunu diine ak sunu maandu ak sunu su sunu sunu sell ak sunu xam-xam dara ci ñaar yi du ko yàq te lu yàq rek ñaar yi ko yàq mooy woote sañ-sañ wala ab am-am ndax ñi ñëpp eh, sañ-sañ rek lañuy woote am ci ñoom ñoo xam ne. li sëriñ Lamine wax léegi ci njëlbeen ñi war a wax am nañ ay responsabilité war nañoo wax ñi nga xam ne dañ leen di diglu xam nga bu jëm mu taxawee di julli bëgg a def euh, rawda ba nga xam ne fa la Cheikhul Khadim nekk dégg nga mu mu mu bëgg koo def euh, xiblaam kooku njuumte la te ñooñu am na ci ñoo xam ne ñu ngi woote woo yooyu ba bu ñu julli bëgg jëm foofa loolu nit fum mu tollut na xam ne tollu fa. nit na doon nit rek lañ ko digal mu mu jiital la war a jiitu teg ca la ca war a tege ñooñu nag da ciy am sax ay gone ay gone ay gone yoo xam ne ci jàng lañ toll ak liggéey yi waaye ñu def loolu léegi métier ay gone yu ndaw yoo xam ne ci jàng liggéey lañ toll waaye dañoo def loolu métier am ci ñoo ñoom ñoo xam ne jàpp nañ ni sax danga ci gis koo xam ne xasida gam yor la jàpp ne moo ko moom bu ko defee ñu ne suñ diw ñu daal ko adresse xasida goo xam ne jàpp na ne keneen ku ko jàng ku dul moom dégg nga moom bu ko jàngee lim ci am ci tuyaaba yow doo ko ci am loolu it ba tey njuumte la ndax xasaayid yi moom ndono la loo xam ne jullit ñëpp ko bokk rawatina murid yi su lay yóbboo nag ci nga jàpp ne yow rek yaa ko yelloo ba wala xasida gi nga yor képp ku yor geneen xasida guddul moom nga jàpp ne sax du murid am na ci kuréel yi ñoo xam ne sindi di boo ko yoree di ko jàng dañuy jàpp ne yow doo murid daanaka nga xam ne ñoom xasida gi ñu yor rek gëm ne moom mooy xasida loolu njuumte la gépp xasida goo xam ne sëriñ bee ko liggéey mm-hmm. soo ko mënee jàng jàng ko ci kaw sell te yàlla tax mm-hmm. te bu la jural dara nag ñu ngi may nettali koo xam ne nee na moom maraaxib lay jàng ki ma koy nettali am mbokkam la ab la ne moom mm-hmm. mooy ñi ñu woowee druskat yu bees yi dëgg la drus lu am solo la lu baax la waaye dafa am lu dafa am lu mu jur jamono yi nee na maraaxib lay jàng ba yàgg mu bàyyi liggéey nangoo tuta liggéey bàyyam génne ko kër ga waaye dañ koy génne ndax amul lu fay luyaas léegi nag mu àgg ci mu jural ko loo xam ne lam daan wax nit ñi jàpp ne àll dem nañ ba xam ne léegi ak ndof rek ne ci moom waaye euh, la muy woote nekkul ci moom ndax bu demee bay wax ne léegi ku tedd ki sax day ñëw ci man léegi ma di ko ñaanal kooku <laughs> kooku loolu loolu loolu loolu loolu loolu jàpp naa ni du tolluwaay jàpp naa ni du tolluwaay moo tax faaw ñu ñu wàccewaat tolluwaay wi wàccewaat tension yi ni ko sëriñ Lamine waxee ci njëlbeen bari na loolu bu sëriñ ñëwoon génne ko ci bari na loolu bu ñëwoon dugalaat ko ci su ko defee ñu xam ne kuréel boobu yi nga xam ne foofii lañ gën a lañ gën a jàng jëm nañ bàyyi xel ne xasaayid yi nga xam ne sëriñ bi def koo liggéey nga xam ne lépp dafa consacré woon dundam gi ci tagg yonente bi sallallahu alayhi wa ak julli ci moom ak ci moom tawassul ak def ci ahlul bayt tawassul dafa am ay xaaj am na ci xaaj yoo xam ne day jàngale xam-xami sharia yooyu dañ ko war a tëral jàng ko xam la mu digg ñu digle ñu di ko jëfe am ci xaaj yoo xam ne ma ngay jàngale grammaire arabe lu mel ne naxwu am ci xaaj yoo xam ne ma ngay jàngale tarbiya lu mel ne naxju xadal xaaj nga xam ne ay teggin lay jàng yooyu yu ñu war a jëfe la am ci yoo xam ne nag xëy na xasaayid yoo xam ne dañ koy jàng muy ay ay ay ak ay istigfaar ak yu demee noonu man ma gis ne wàccuwaay bi mu am mooy wàccuwaay bi nga xam ne moom la nit ki war a jox alxuraan bu koy jàng mooy settantal maanaa yi lum ci digle nga def lum ci tere nga bàyyi su boobaa da nga mën a jariñu jariñe ca te jàpp naa ne loolu moo gën a mat moo ëpp solo nga jàng ko noonu rek seetantaloo ko xamoo lam digle xamoo lam tere jëfewoo ko bàyyiwoo ko nga xam ne bu amee njariñ ci yow rek lay yem jàpp naa ne la léeg ko gën a mat loolu nag kuréel boobu bii nag nga xam ne léegi ñoom jàpp nañ ñoom rek ñooy murid yi boo demee Europe kuréel yi fa nekkoon yépp daanaka loolu tas na ko am na fa ay kuréel yoo xam ne àgg nañ ci daanaka mënatuñoo nangootuñoo reconnaître genn kilifa ngir jàpp ne ñoom ñooy ñooy ñooy kilifa yu mag yi te li leen ko yóbbee mooy loolu yi ma doon wax léegi loolu njuumte la nit mënta ñàkk am kilifa li anna man adima cheykhan murshida fa seyxuhu cheytaanu xaysu xasada soo jàppee ne amoo kenn ku la war a orienté rek amoo kilifa seytaane ñëw taxaw wommat la te seytaane bu la wommatee mi ngi la jëmee ci ñaawteef wal iyaasu billah muy dëkk boo xam ne boo fa xasee tabbi da nga tarxiis ci kàmb goo xam ne yaa ngi jëm kàmb sa war a tudd tu mën a téye sa bopp dañoo taxaw foo xam ne du taxawaay am na ci nag beneen kuréel boo xam ne moom day mel ne agguñ ci ñu njëkk ña waaye agguñit ci ñu mujj ñi ndax kuréel la boo xam ne maanaa jaamu yàlla dañ koy defee na mu leen neexe tere yàlla it dañ koy bàyyi na mu leen soobe rek mi ngi aju daal ci seen bakkan ak seenu cawart loolu nag demewu ni ndax alxuraan dafa waxoon ne képp koo xam ne dangaa tànn doon ab jullit soo xasee dugg ci biir yàlla wax jaarale ko ci làmmiñ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amatoo coobarewu ci seet na la neex nga defee noonu maa kaana li muminin wala muminatin isa qada allahu wa rasuluhu amran an takuna lahum al xiyara kooku su yàlla xasee wax ne nii la jaarale ko ci làmmiñ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jëfee rek moo ci des sëriñ bi boo xasee engagé wu ñëw jaayanteeg moom nam jaayante woon ak yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te boo delloo ci Hamad Souleymane wala nga dellu ci miim ya da ko ca fekk aslamtu nafsi li rabbin baamu ko ay yoon nag jalla an waladin jalla an masalin la nasira lahu la shabiha lahu ba mu jeex ma allasi rek la doon waxe ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak moom nag ci dox jaar ci yoon wi mu jaar kon nag moom it boo jaayanteek moom it nag da ngay fas yéene boo jaayanteeg yàlla da ngay fas yéene ànd moom it nag jaar ci yoon wi mu jaar jaarale ci mag ña nga di ca dox waaye doo jaar nag ci sa dox ci sa doxinu bopp su loola njuumte lay doon kon ñooñu it nañ bàyyi xel ne du du liggéey boo xam ne mag da koo liggéey ba mu yemb nga ñëw bëgg koo fooye di ca duggee na la neex wala nga cey génn na la neex boo taxawee ci bitti nag bokkoo yaa xam bokkoo waaye boo xasee ñëw nag jaayante ba dugg ci biir nag dafa am ay principe dafa am ay normes yoo xam ne faaw nga tënku ci mu mën a dëggu ci ne yow aju nga ci sëriñ bi ndax ak aju moom fa bimtisaali awaamiri rahmaani sil jalaali wax ama taalluq ñi aju mooy ñi topp ndigali yàlla di bàyyi ay tereem wax nañ ni mas naa nettali lu mel noonu sëriñ bi moo ko ko waxoon Cheikhul Khadim euh, soxna Aminte Bousso waajuru sëriñ Abdul Xaadir ne ko man bi ma wootee ñett ma wuy si ñenn ñi dañoo dégg sama kàddu dal di fëx jawal si fi ma nekk daw si ñenn ñi dégg ko dal di fëx di daw ñu di leen ëyu ñuy da ñuy daw di wéy dégg mel ni mel ni dégguñ ci leen di woo ñenn ñi nag dañ koo dégg daw ñëw ba ci digg yoon wi ñu toog mënatuñoo ñëw loolu mën nañ ko séddale ci ñetti murid yi muy ki tege fi nga xam ne moom la sëriñ bëgg mu jaar fa mooy ki daw ba fekk sëriñ bi fi mu nekk mm-hmm. ki jaar ca weneen yoon wa nag mooy ki nga xam ne dafa daw wan ginnaaw sëriñ bi jaarut ca yoon wa ki nga xam ne nag jaar na ci yoon waaye da aggut ba noppi jàpp ne àgg na mooy ki ñëw ba ci digg mu yem foofee mm-hmm. wa minhum muqtasid wa minhum saabixum bil xayraat wa minhum saalimun li nafsi kon ñett ñooñu la muqtasid mooy ki ñu fekk si sëriñ bi saabixun bil xayraat saalim si nag mooy ka daw mooy ka daw muqtasid nag mooy ki nga xam ne ak séegut daa ñëw ba ci digg bi rek mu am foofu kon ñett ñooñu mooy ñetti xeeti taalibe yi nga xam ne ñoo am mu mel ne nag am na it ñetti xeeti sëriñ yoo xam ne am na kooku moom dañ koy tënk rek jàll ndax kuréel bu njëkk bi ci sëriñ soosu mën nañ koy yégal ca euh, li ñu doon wax ci Cheikhul Xadim léegi ndax dañoo boole la Serigne Touba doon jàng ca la Serigne Touba doon ñaan ca matlabu chifa yi daf leen a dal wajnal jamia al ulama i aamilin wajnal jamia al aamilina muxlisin wajnal jamia al muxlisina euh, zahidin wajnal jamia zahidina naasihin wajnal jamia naasihina saadiqin wajnal jamia saadiqina faisin jàng nañ ba xam jëfe lañ xam sellal ko génne adduna ci xol di laabiranteeg jaami yàlla yi dëggu ca lañ nekk ba sunu borom fekk leen caakook texe ñooñu ay suyuux lañ soo xam ne ñooy gindee te jaar nañ ci yoonu mucc te mooy jaamu yàlla wéetal ko di jëf lu baax di ci jariñ nit ñi di ci jariñ seen société adduna ak àllaaxira ñooñu ñi ngi roy njàngaleem Serigne Touba mooy ñi ngi roy njàngaleem alquran ak hadis ñooñu ñi ngi sàmmoonteeg sharia ñooy ñi nga xam ne seen biir ak seen bitti lépp rafet te lépp lu ñu wax ñu jëf ko rek boo delloo ci alxuraan fekk fa lu ñu firi nga xam ne day dëppoog seen jëf wala mu dëppoog seen i wax ñooy ñi nga xam ne li sëriñ bi digle woon ci yooyu matale nañ ko sëkk kuréel boobu nag mooy kuréel bi nga xam ne ñooy donn secret sëriñ bi ñooy doon it xaalam ndax sëriñ bi ñaanoon na yàlla mu may ko ñu mel noonu ñoo xam ne jamono ñu nekk dañ fiy nekk ne ci mission bi mu nekkoon zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabil mustafa tajtahidu kon nag nañ bàyyi xel ne ñooñu man ñooñu mën naa doon ku ne nag ndax awlaadul qalbi ak awlaadu sulbi la sëriñ Abdul Ahad xikma ba ci la moom la Sayxul Xadim wax awlaadul qalb mooy ki nga xam ne day doon xaal kooku mën naa doon ab jaambur ci yow waaye dafa ñëw bëgg la jaar fi nga jaaroon ba nga compal ko ci la nga yor wala du sulb nag mooy ki nga xam ne moom mooy doon sa alal moom it ci pas-pasam ak farloom mën naa dem ba nekkit wala dul qalb mën naa boole ñaari yëpp kon sëriñ bi am na ay awlaadu sulb awlaadul qalb yu fi nekk yoo xam ne ci seen biir bari na ay awlaadu sulb waaye nag am na ci ñu ko doonut waaye teewul nag ñoom doon nañ xaalo sëriñ bi ndax ña nga ci la sëriñ bi bëggoon mu mel ne euh, kuréel boobu buñ dee xool ñu néew lañ am nañ waaye néew nañ néew nañ lool ndax mandarga yi ñu leen di yi leen di xoolee dafa wuuteeg màndarga ya nga xam ne moom lañ fekk ci ñoom moo tax sëriñ bi daan wax ne bul seen nit mu ñàkk solo ci col wala mu ñàkk solo ci doxiin tax rek nga bëgg ko xeeb ndax mën naa mi ngi fees dell ak secret wa rubbama staqbaxta cha'na al abdi wa innahu qad haaza kull al majdi laa tasdari al abda li xubxi al malbasi maa taxaddudi wa kusri danasi is rubba si taxaddudin xadimtala nuuran wa sirran min ilahin qad ala kon nañuy bàyyi xel ñooñu tey bàyyi xel ne mën nañoo nekk fu ne am beneen kuréel nag boo xam ne mel na ni mën nañ leen a tudde sax nag ñoo xam ne ay sëriñ lañ waaye ñoom it dañoo gàttañlu ci foo xam ne euh, doyu tayam ndax seenum yóbbal ci ci xam-xam dafa manqué seenum yóbbal ci alxuraan dafa manqué seenum yóbbal Euh, ci na seen biir war a mel seen bitti war koo mel dafa manqué nga xam ne dañuy feeñal ci biir bokkut ak lay feeñ ci bitti su ko defee day mel ne ñooñu am na ci ñooñ bu ñu waxee wala ñu jëf daanaka nag léeg-léeg dangay ngay bëgg a xotti suuf si tàbbi ca ngir li ñu wax ak li ñu jëf nim juunoo nga xam ne wërta génn ci làmmiñu koo xam ne dañuy tudd di ko askanale jëme ko ci sëriñ bi muy ñi nga xam ne lépp ci ñoom it boo demee dangay fekk seen discours yooyu ñoom seeni seeni wax benn baat rek moo koy fees mooy sëriñ bi rek a fi nekk sëriñ rek a fi nekk mu nekk li li li arab yi di wax kalimatu xaqin yuraadu biha al baatil baatub dëgg boo xam ne ñu ngi ci namm ay caaxaan ak neen ndax buñ ne sëriñ bi rek a fi nekk ñëpp xam nañ ne loolooy dëgg waaye ki ko wax lu tax mu wax ko moom kat discours boobu rek la am ngir mën a am li bëgg waaye buñ ko seete ci nattukaay yi nga xam ne moom la sëriñ bi wax ne nañ ciy natt kilifa moom buñ ko peesee du doon dara buñ ko peesee du doon dara te dafa am ay nattukaay nag sëriñ bi daf ñoo jox ay balance ne nañ ciy peese kilifa koo ko peeseel nag mu wat ko kilifaa ngoog boo dee topp topp ko waaye kooku peeseel nag mëtu ko jàppal ne kooku du dara fatruk sa nahu dégg nañ ko ba tàyyi ci njàngaleem sëriñ bi fa daahu yaa murid dégg nañ ko ba tàyyi ci njàngaleem sëriñ bi te ñaar yépp suyoo soosi ñoo ko moom kon nattukaay yooyu nag buñ fàtte ni mu ngi fi kon kooku bu mu la gëlëmloo ci ay wax wala ci jëf ba bëgg laa jox pas-pas bu wuuteeg pas-pas bi la Serigne Touba jox moom am na pas-pas bu mu la jox ne la pas-pas bii dee lii dee ko natt ci nit ki boo ko nattee mu fees ko dell jàppal ma kooku te xam ne kilifaa ngoog te kooku lañ war a topp te mooy euh, ki nga xam ne moo boole shariha ak xaqiqa kooku la njëkk wax ne moom lañ war a topp xuqa lahu an yuttaba wa man li fiqhin wa tasawufin jama fa huwa alladi xuqa lahu an yuttaba ki boole ñaar yooyu kooku la war a topp kon nañ ràññee loolu ki boole sharia ak xaqiqa moom la war a topp tey nag bu ñëwee ci kuréelu ñetteel bi da gis ne li ëpp ci ñiñ topp mu ñub yóbbal ci sharia amuñu yóbbal ci xaqiqa bu fekkee am na dara lu ñu yor sulmaaniya lay doon mu ay fitis ak ay xeeti njabar yoo xam ne wala iyasu billah daanaka ci lañu ñu gëlëmale ñi ñu gëlëmal ñëpp mu mel ne kuréel bii ma doon wax léegi te nga xam ne ci sëriñ si la am na ci ñoo xam ne euh, day mel ne bëgg nañoo dund bëgg nañ taalibe yi gëm leen tax seen discours yooyu ñu koy feesale baatu sëriñ bi rek a fi nekk ngir lañu waroon am ci yóbbalub xam-xam tàmbule ci alxuraan ak ya ci aju manqué nañ ko la waroon a amug yóbbal ci njub manqué nañ ko ñu wëlbatiku yemuñ ci loolu waaye ñu seet ñi nga xam ne ñu ngi góorlu ci loolu ñu def ñu def leen li ñu wooyee mumaanaa ñooñu lañ jàppee seen i opposant ñi yëngu ci xam-xam ñi yëngu ci alquran wuuteeg loolu na leen Sayxul Xadim jàppe woon sëriñ bi moom ñi man alquran nag ñi yëngu ci xam-xam moo leen daan sàmmal boppam di leen saytul boppam tey nag ñii nga xam na nañu war a mel meluñ ni dañoo def ñoo ñooñu ay noonu jàpp ne ñooy ñi nga xam ne ñoom bu seen nguur jàpp ne daal ñoom ñooy ñi nga xam ne dañ leen a bëgg a remplacer jël seen nguur te fekk demeewul noonu ku ci mel na nga war a mel xam la nga war a xam lu nit gën a am xam-xam lu nit gën a jege yàlla gën laa fonk gën laa gëm ngir sëriñ bi ndax ña ko daroon ab jaahil nekku ci ña ko daroon it ab yaafus nekku ci ci digganteem ak boroomam waaye pas-pas yi amoon ci moom pas bu mel noonu kenn amatu ko kon sëñ baa matoon seen pas-pas dëgër tey jii nag ku bëgg pas-pas yi gaa ñi dëgër ci yow da ngay fexee jéem du ma ne mat ndax mat moom yombut yàlla nag dana matal ku ko soob waaye nga jaar ci yoon woo xam ne ñëpp xam nañ ni jaar nga yoon kooku lu nit am am lu nit sonn ci jàmm yàlla lu nit sell sell da gën a fonk da gën a bëgg kon kuréel boobu mooy kuréel bi nga xam ne ba léegi day mel ni ginnaaw bu ñu defee ay noon ñi nga xam ne góor góorgóorlu ci ak mbaax yemuñ ca waaye li nga xam ne mooy teggiin day mel ni dañ koy delloo ginnaaw ci seet ñi nga xam ne ñooy boroomi teggin ñu di leen doyoo di leen doyoo dal ñi nga xam ne ñooy ñi lëmbowu dara ci teggin ñi nga xam ne ñooy ñi ñàkk kersa ñuy def ak ñoom mu jaama la di lëngook ñoom di jëflante ak ñoom jëflante boo xam ne yellut su ko defee day mel ni ñi ngi jëmbat euh, meññetum mbañeel ci seen digganteeg ñooñu ndax bu fekkente ne ñaar dañoo ànd ñaar dañoo ànd kenn ki yàlla baaxe ko teg ko ci yoon waajalal ko boppam mu ame jikko yu mat am teggin yu mat sëkk ka ca des ñàkk boobu sens waajtaayam des ay tegginam manqué bu dikkee ci kuréeli kilifa yooyu ñu seet ki nga xam ne moom lañu waajal ki nga xam ne moo moo moo moo làmbooy teggiin ñu woyofal ko doyodal ko ñàkkal ko solo teddadil ko yëkkati ki nga xam ne nag aw làmmiñam ñaaw na amuti teggiin amul kersa amul warma buñ saxalee loolu ci biir njaboot gi day mujj gone yi nga xam ne ñoo tollu ci jub te bëgg a tege ci yoon su ñu gisee loolu dañuy jàpp ne kon yoonu teggin moo amul solo ndax li feeg yaa ngi fay jaar duñ la teg fenn day mel ne kon ñàkk teggin ak ñàkk gëm dara ak ñàkk kenn fenn la jàpp ne mooy yoon wa ndax ku fa jaar danañ la yëg danañ la bàyyi xel danañ jëflanteeg yow loolu nag bari na ci ñoom ñoo xam ne ñooy jëmbat loolu ndax da ngay seet ñi nga xam ne ñoo doon seen entourage li ci gën a bari duñ tege ci yoon te xam nañ ne ñoom ngir jëmmi yàlla waaye ñoom it dañuy ànd ak ñoom rek ngir ragale leen seen làmmiñ yu ñaaw ak seenu ñàkki teggin ak bëgg ku leen warmaal loolu nag day day delloo ginnaaw teggin te teggin day day day day ponk bu am doole ci liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi ñooñu day mel ni am na ci ñoom ñoo xam ne képp ku ñu woo ba tudd ci saw tur baatu ab taalibe jàpp nañ ne amatul war ma juñ la war a jox donte mag nga mu weex tàllak bi jaaw fàtte ni nag sëriñ bi la mu jàngale woon mooy murit bu nekk dafa am teggiin yu ko war digganteem ak moroomam digganteem ak kim féete ak mag ak digganteem ak ki ko féete ak mag nga xam ne daraja joo am mën a am rek yow njàngale moomu sëriñ bi jàngal na am na ay teggiin yoo war a jëflanteeg say moroom teggiin yow war a jëflanteek ñi la mag ak teggiin yoo war a jëflanteeg ak ñi nga mag. su fekkente nag kiñ ne ab taalibe la lu doon doon mag doo ko jox war ma danga koy sàllalu doo ko wàcce wàccuwaay ba mu war a nekk teggiin yi war a ndox sa diggante kilifeet ak mag nga xañ ko ko su boobaa umpule nga njàngaleem sëriñ bi wala faale woo ko loolu ba tey day am ci kuréel boobu kon kuréel la boo xam ne bari na ci ñoom sax ñoo xam ne danañu samp ay daare alxuraan danañu jël ay jàngalekat waaye aq ya du mat li ëpp ci jàngalekat yi wër ñu di leen jàngaleloo di leen fay ci biir kër kilifa yu mag yooyu fa lañ gën a bari lu ñu téye seen àq lañ leen war a jox duñ leen ko jox. loolu nag day mel ne kon daara ji ak fiir la waaye gëm-gëm ba ba fa nekkoon wërsëg ba fay ñëw mate na ki nga jël mu di la jàngale nga di ko fay lu mat sëkk. bari na ci kër yoo xam ne boo demee lu ma ëpp téeméeri jàngalekat jaar nañ fa te la ñuy laaj bariwut waaye la leen fa jëlee mooy dañ te ticc mënuñu feex ba jotee seen àq loolu nag mënta ànd ak ñu ne kooku la sëriñ bi bëggoon ci moom ma nga ca kon bu tegee ci aw yoon it na yëg ne taxaw na foo xam ne du ab taxawukaay am na ay gàllankoor yoo xam ne war na ko xoolaat defaraat boppam bari na ci ñoom ñoo xam ne la leen gàllankoor ci wàll googu mooy bëgg ak ciiwte bëgg ak ràññeeku bëgg daraja ba nga xam ne loolu doo ci regg lépp lu ñu wax ci ciiwte rek mënoo ci am lu la reggal lépp lu ñuy wax ci ak ràññeeku mënoo cee am loola reggal lépp lu ñuy wax ci daraja yi naka noonu loolu day waral nit ki jaar ci yoon mu mënta jaar mu mel ne dafay bari ci ñoom ñoo ñoo xam ne lépp ci ñoom it dañuy dund ci diine di dund ci tariixa bi maanaam liggéeyu sëriñ bi waaye dundalaatuñ ci diine dundalaatuñ ci yoon bi kon nag lépp looy dundee ci ñaare yooyu bu dee yaa ngi dund ci diine fexe koo dundal bu dee yaa ngi dund ci liggéeyu sëriñ bi fexe koo dundal waaye yaa ngi ciy dund te dundaloo ko nag loolu amut solo charrul war alladina yaakuluuna amwaalan bi diini wa yaxusuuna sëriñ bi waxoon na ne ñiis ci nit ñi mooy ñoo ñi nga xam ne dañuy dunde diine di ko mbubboo te dund dundaluñ diine naka noonu nag kon képp koo xam ne yaa ngi ci biiram di ko dundee di ko mbubboo te dundaloo ko taman mën koo dundal yàlla ñi ngi tiit nga bokk ci ñi yées ci nit ñi boobu itam loolu kon benn kuréel la boo xam ne mooy kuréel bi digg doomu sarul waral ladina yaaqusuuna bi diine am amwaalan summa na loolu mooy kuréel bi nga xam ne moo digg doomu ci kuréelu sëriñ si ñu war nañoo seetaat bu baax seen bopp ndax entourage yi ñuy am ñuy nekk ak ñoom li ci gën a bari duñ jub duñ ragal yàlla duñ am worma duñ xam àqi kilifa duñ ami teggiin waaye yooyu yëpp nag duñ ko gis lan la ñuy gis mooy ñi ngi leen di jiin ñi ngi leen di kañ ñi ngi leen di yëkkati di leen teg ca kaw di leen di leen jox ay xeeti war warma yoo xam ne ñoom ñi leen ko jox sax gëmuñ ko loolu nag bu la jiitalee ba nga téye kooku seet ka nga xam ne moom la muy def lum gëm la lam nekkee lu gëm la te wóor na la ni li samaam maam bëggoon ma ngi ciy góorgóorlu kem kàttanam nga nga nga sàggane ko doyadal ko su boobaa def nga loo xamut ñooñu mooy kuréel bi nga xam ne mooy kuréel bi diggu doomu am na kuréel boo xam ne bokkuñ ci kuréel bu njëkk bi bokkuñ ci kuréel bi di doom bi muy kuréel boo xam ne yàlla nañ ci yàlla musal mooy ñi nga xam ne ñi ngi woote ci àdduna bi di samp bëgg doon ay njiit te ñu gën leen a miine ci sunu làmmiñ ñi ñu woy ay yëngalkat nga xam ne seen yitte mooy alal seen yitte mooy alal ndax lañuy woote bëgg nit ñi topp leen bu dee tasawuf ci bu dee ci xaqiqa cadre xaqiqa lañ wootee ñoom naanuñ ci xaqiqa lu leen màndi ba ciy jox keneen bu dee ci charia la ñuy wootee koo ci diglu ab discours xam ne ku war a jàngi la te nag man li fiqhin wa tasawufin jamaa fa huwa alladi xuqa lahu an yutaba ki boole ñaar yooyu géeju ci fiq géeju ci tasawuf sëriñ bi nee kooku rek la war a topp ndax balaa nit a sampu balaa nit a sampu di wax ne dafa bëgg dundu dund tasawuf rek sëriñ mi nee na na géeju ci ñaari yi waxuma nag muy woote ndax min ha tabaxuru fi ilmi shariati euh, ma ilmi alxaqiqati min dafa bokk ci seeni principe ñoom al mutasawifa nga géeju ci sharia géeju ci xaqiqa doo ko nag jaar ci yoon wi nag ne dama bëgg a dox doxub gàññe asairu ila allah hmm. su ko defee isirtiyaadun maa al irshaadi qablahuma min jaalibaati xururin ma shaqawaati ndax boo jugee di tàggatu ne da ngay dox jëm ci yàlla wala nga ne da ngay jug di orienté nit jëme ko ci yàlla ta daray sharia nekku fa daray xaqiqa nekku fa nee na loolu ak waru la lay indil ak texee di wal ay asubila li ëpp ci ñoom ñii nag di woote tey sharia nekku fa xaqiqa nekku fa ñaar yooyu dara nekku fa te day feeñ ci seen i wax feeñ ci seen i comportement feeñ ci seen i jëf ñoom ñëpp a ngi ci télévision ñu ngi ci média bi di wax da nga koy dégg mu mel ne mu raw rawwidu ruux ki nga xam ne moo war a tàggat ruux su fekkente ne amul ay ay ay ay possibilité yoo xam ne moom àggale na ruuxam fa mu bëgg ki muy tàggat àgg fa moom kon naka la fay mën a àggale keneen arab yi dañuy wax ne faaqidu shay'in la yu'tihi nit ki lu mu amul mënu ko joxe ki nga xam ne ruuxam àggu ci yàlla maanaam sellut ba ba man a àgg ci yàlla moom su wootee ne day àggale nit ñi ci yàlla it ma ngay wax loo xam ne xel nanguwu ko ñooñu nag ñooñu ñu woy almadiyun eh, ay matérialiste lañu alal moo leen tax a jóg nga xam ne ëpplante alal ak woyofal màndarga sharia mooy seen yitte ñu ne ci waru goo xam ne. dañ koy jéem a layal di ko jéem a justifier ci sori gi ñu sorenteeg jaamu yàlla duñ ko jege fenn boo waxee ñu ne euh, sëriñ bi mu ëpp doole lépp dëgg la ràmmum sëriñ bi yaatu na lool ràmmum sëriñ bi yaatu na waaye loolu lay wu ràgg la ci ko nangu te jaamu yàlla da ngay jaamu yàlla mën na doog yaakaar sëriñ bi ñooñu jamono ju nekk dañuy déjjéer la ci ak mooy yàlla dañuy risqué dañuy dañuy njéeméerlu ci toggoo gi ñuy toggoog tere sunu borom yi mu mel ni xam nga góor ak jigéen di jaxasoo ci ci ron ay tànt ci forme boo xam ne ñëpp xam nañ ne ay caaxaan na leen fa bàyyi dégg nga boole kook ay musique boole kook ay xiin dégg nga saxar si ñuy tux yàmbaa ji dégg nga sàngara si xeeñ xunn nga ne ci seen biir te te boo moytuwulee ci nga jóge kooku day mel ne contexte bi nga xam ne moo taxoon sëriñ bi ñëw jamono di fi jëlee si loolu moom nga bëgg a delloo si waat te jamono boobu loola amoon ndax sëriñ Moussa Ka juñu na ko euh, kenn amatul qasdu li wajhi laahi kaa ngi ki foore faf di jaanin laahi euh, ca ca njëlbeen nga euh, góor ak jigéen jaxasoo di caaxaan lamb yi góor sabar yëpp jaaxaan loolu fi sëriñ bi fekkoon léegi day mel ne ñoom dañu indiwaat loolu ba nopp nag di mbubboo sëriñ bi mel na ñu ngi ci biiru liggéeyam te sëriñ bi loolu la ñëwoon ngir dagaase ko dafa ñëwoon ngir jëlee ko fi mu mel ni lu seen mbooloo gën a bari ku li ci gën a bari mbooloo day mel ne mooy ka leen gën a bàyyi ca lay seen bànneex waaye ki nga xam ne dafa taxaw insisté ci ne ku mënta bàyyi nangam na taqali koog man bis naka tey na ko sëriñ bi defee woon ca Mbàkke Kajoor ne ku fi nangam indi képp muy njàngum kese demal seeti foo ko defee ji waaye koo xam ne nag li ma tax a jug moo la tax a jug ñëwal ànd ak nun ba mu ko defee lu néew ko topp mm-hmm. minorité la àndaloon booba majorité ba demoon ko ginnaaw mm-hmm. naka noonu tey ñi nga xam ne ñooy woote te mbooloo topp leen ku ci taxaw taxawaay boobu ñu néew lay topp ndax ñu ci yàlla ñor bëriwul ñoom nag dañ koy xam bàyyi leen ñu di leen fekk si léegi nag day mel ne maanaam phénomène la boo xam ne yaatu na ba léegi bu la ci aw sant trompé bu la ci aw askan trompé ndax ku nekk ngi ci biir mën naa sant nu ne mën naa mën naa bokk fu ne waaye deel ràññee ba xam seenub yóbbal ci ñaari yi sëriñ bi wax nekk bala ñoo topp ni na ci fees dell fan la seenub yóbbal topp sëriñ bi njëkk muy woote fekk na ñaar yooyu mu àgg ci ci àgguwaay boo xam ne réew mi mu nekk kenn sikki sakkatut ne lenn lu ci nekk géeju na ca muy sariya ak xaqiqa mu doog a tàmbalee woote. mu mel ne kuréel yooyu ñoo ñi nga xam ne ñoo yëngalkat yi ndakaaru nag lañ gën a bare boo leen dee seet ñi ngi gën a ràññeeku ci média bi am na ci ñoom ñoo xam ne ñu ngi xuus ci politique bi. am na ci ñoom ñoo xam ne ñu ngi xuus ci di di di woote ne ñoom ay sëriñu ñaankat lañ te nag sibile ay benn ci sëriñ su baax si di leen tuumaal maanaam yow li nga yor njabar la li nga yor euh, ay ay ay ay ay fitis la nga bëgg a wëlbatiku nag di mbubboo ab sëriñ ne sëriñ diwoo ma defal nangam wala sëriñ diwoo ma yar wala sëriñ diwoo ma defal nangam loolu du lu rafet te ñett lañ ci gën a sibile muy sayxu saalix Cheikh Mahamadul Fadilu ak Cheikh Ibrahima Fall wootekat boo gis kenn ci ñett ñooñu lay mbubboo benn mu ne Sëñ Saaliw woo ma yar wala muy ab ñaankat koo xam ne nee na day ñaan mu ne Sëñ Saaliw woo ma yar wala muy politicien ne Sëriñ Saaliw woo ma yar te dara du ci dëgg gaa yu baax yooyu nag ku leen bàyyiwut a waxal lu dul noona sak pay bëccëgu dara kam dana am loo ci gis bala ñu àgg ëllëg nit na ne ca lam nekk te bañ caa dugal nituk yàlla muy wootekat muy yëngalkat bi muy politique politique kat bi muy kii woote ne ab ñaankat la kenn ku nekk lam nekk na ca nekk te génn ca doomi siñ Tuubaa walla muy mbubboo Sëriñ Fàllilu wala mu ne Sëriñ Fàllilu lu ma am Sëriñ Fàlloo wala damaa gént gis ko nañ ko ca génne moom nekku ca yooyu taxaju ca wala mu mbubboo Cheikh Ibrahima Fall moom it nañ ko ca génne nekku ca yooyu taxaju ca su ko defee ñoom ñooñu dañuy dañuy dañuy neenal li ñuy wax a tarbiya saaliha éducation bu baax duñ ko am ndax amuñ kuñ mën a roy li ñuy wax xudwa xudwa xasana amuñ ko su ko defee xale yi yaroo ci seen keppaar nag màgge ci ñoom ne ci seen biir kër melokaan yi ñuy am la ci jiitu mooy dañuy ñàkk teggiin duñ xam teggiin duñ ko jox kenn duñ ko nangul kenn duñ warmal kenn moom mañ àndal lañuy ñuy wan ak ngëmu ak di ko wan lu nuru war te gëmuñ loola ngir rek def nañ ko wéeruwaay woo xam ne mën nañoo dajaloo ci këram def lañ bëgg a def tam doon lu ñu leen aayee loo xam ne bu ñu ko defee ci bitti ñu rëq seen digg ñu ñëw dajaloo ci moom moom it muy mbubboo sëriñ bi bàyyi leen ci ñu nekk ca loola. dañ may nettali lu xoromu lu reelu waaye lu ñaaw nag kenn ci ñooñi maanaam kenn ci ñooñi nga xam ne da yëngal mooy ñiy woote te te li ñu woote dara du ci dëgg. te mu fees dell réew mi moom nag mu génn dem ba bi maanaa fi mu toog gaayam yi wër ko ñi ko ñi ko gëm nee na kee ma nga yor am ñolam di naan kee ma nga yor lu bonam di tux kii mu ngi yor mu ngi dend ak jigéenam ñu nekk ci lu bon moom mu toog ci digg bi buñ takkee ci lu bon li jox ko mu xëcc ci ba doyal ñu jox ko ci lee mu naan mu ne day waaraat ci sëriñ bi waaye moom it buy waaraatee ba yàgg eh, kenn ci ñi toog dégg loo xam ne nee na da caa bëgg yéemu bu yéemu day fetox da daggu saaga ne déggal sëriñ bi rek ñu ne ca loola. loolu nag xam nga wala iyaasu billah loolu seytaane kese la mu mel ne woyofal gi ñuy fal charia ak di àtte yoonu murit ca lañ gëm ak la ne ca ñoom loolu njuumte la soo ñëwee ci ñoom dañ lay wan li ne ñoom di la gëmloo ne lii mooy yoon wi loolu du yoonu murit yoonu murit du sama xalaat du xalaatu ma sàmba du xalaatuma demba sayxul xadiim radiallahu anhu moo ko rëdd bind ko jàngale ko loola mooy yoon wi man lu ma mën a nekk ak ku ma mën a doon seetal rek ba xam li ma nekkee dëppoo naag li sëriñ bi digle wala déet bu dëppoot ak moom nga ne ma fa ñukk te dem ci la sëriñ bi digle keneen noonu su ko defee ñoom dañuy dimbulante ci seen réer googu ñu nekk dañu nekk ay ay ay ay yoo xam ne dañuy jàppalante ak ci seen mbooloo yooyu ñu jàppalante waaye di xotti ma boole koog ñàkk yërmande boole koog di tisaare ak yàq ci kaw suuf loolu ci ñoom lay juddee ñooñu nag sëriñ bi junjoon na leen sëriñ bi nee woon na wa ruba abdin xat ala inda al uyun ka annahu qutbu raha haysu yabin wasiituhu ntashara fi l buldaani wa huwa kal qirdi lada arrahmani nee na bari jaam boo xam ne dafa siiw tisaaroo ñépp xam ko adduna bépp di ko teg bët ñëpp yëkkati ko ca kaw jàpp ne mooy waaja nee na te fekk na boo demee fa yàlla ak golo ko fa ëpp solo nopp si jaboot loolu day feeñ ci jëmm yi nga xam ne seen kaw mooy am xay-xay waaye seen biir du dara la woote du dëgg teguñ nit ñi ci dëgg boole kook nag nekk ci seen bànneex ndax man mënumaa nangu nga nekk ci keppaaruk Cheikhul Xadim di ko wooteel ba noppi nag lëm gëmoon nekkoon ca gënuñ koo fonk lépp nga maase ko wan ginnaaw wan ginnaaw lépp lam gënoon a bañ gënoon koo sori nga xam ne daa dikkoon ngir jële fi loolu nga nuur ca ba jeex tàkk yaag ñi nga àndal ba noppi nag jàpp ci moom nga bokk loolu sama xel mënu ko nangu ñooñu nag ñoo waral sëriñ bi jàngaloon nañu ca Masaalikul naan lu yàgg loo xam ne dañ koy fàttee nafar ay wax yoo xam ne ku ko waxoon rek te te léeraloo ne sëriñ bee ko wax dégg nga ñu gise ko nu ne waaye nag isbaana jahran annama suyuuxu haza zamani julluhum fuquuxu ba ko sëriñ bi wax yàgg na te booba dane leer na naññ ne jamono jii ñu nekk day li ëpp ci ñi ñuy wax ne ay sëriñ lañ ca dëgg-dëgg du ñu ay sëriñ waaye ay fiir lañ ay fiir fiir nag bu raxee benn mu jàpp benn mu moy waaye bëgg lum jàpp moo ko tax moo ko tax a jug daal di ne wa baaduhum yarkanu li tasadduri am na ci ñoom ñoo xam ne dañuy jeng bëgg doon ay njiit loolu nag moo fees del léegi jamono ji tey ku nekk yaa ngi ci sa ruq tudde sa bopp saw tur yor sos mbooloo am saw bàkk ne la nga nekk te kenn mënu koo saafara di tuumaal kilifa yi nekk ci caaxaan ba lu nit bëgg a wax yoon yu bëgg koo wax sëriñ bi foofu lay jaar wax ko ko muy lu ñaaw discours yi boo déggee si discours discours yu bon yoo xam ne doo ci dégg ayab alquran doo ci dégg hadis doo ci dégg bay bayitu sëriñ Tuubaa ak ngóor rek nga ciy dégg ak ngóor ñuy ŋeeŋ ak ngóor képp nga ciy dégg discours yu bon wuute lool ak njàngaleem Serigne Touba loolu nag wax dëgg yàlla taxutoon taxutoon ñuy topp kilifa wa ba wa baaduhum yarkanu li tasadduri ila riasatin bila tasatturi nee na te loolu ñu nekk làqatuwuñ sëriñ bi waxoon na ko dañuy jàng jëm ci bëgg a doon ay ay njiit ñu di leen topp te dañ naan fàng nag amu dara luñ ci nëbb lam ca teg mooy walam yu mayis bayna fardin wa sunan wa yajsibul wara li mujibil fitan du ñu ràññee farataak sunna duñ ci xam dara koo ci laajoon farata julli du ko xam ñoog ñi nekk ci mbedd ndakaaru yi taxawaalu ñu leen di laaj lan mooy sart julli ñu naan koy dóor trois fois ñoo ñoo bokk bu atte farata julli xamuñ ci dara xamuñ ci suñuy julli dara boole koog di ñoddi nit ñi nag jëme leen ci loo xam ne fitna képp la leen jural wa yaddail kamala wal wilaya yedd hal wara bi kasrati riwaya su ko defee kenn ku ci nekk yaa ngi woote ak mat ak di woote ne da ngaa ñi la topp nag di la propagandal kuñ toogal daañ ko wax lu ne barki démb rek dama dama dama am ku may waxal ndeysaan ci téléphone moom sax dama doon dama doon tooñ mu ne ma yow da ngaa war a ñëw sama sëriñ ñaanal la ma ne ko ah mu ne ma ma ne ko te indi ma ñaanal ko mu ne ma déedéet ñëwal mu ñaanal la ne ma yàlla xam na ne de bàyyam jur ñëpp moo ci gën a amug wilaaya ma ne ko ah mu ne ma ne ah, ko loolu de baax na mu ne ma bari na kilifa yu fay ñëw de mu di leen ñaanal ma ne ko baax na mu ne ma tee ngaa ñëw ma ne ko nag man xam nga man damaa dëgër bopp damaa dëgër bopp te la la waaj a waxoon ne ku xëy jommi gont jommi jinne ja la jommaloon ci suba day junne ju naw waaye boo xëyee junne ju mag ñela ju la dootoo jommi man damaa taseeg doomi sëriñ Touba yàlla taw fee xel moom ma gëm ko jonjoon teeg moom man na na toog rek te ñaanal ñeneen ñi leen topp dañuy mën a propagande ba nga xam ne ku ñu toogal daañu la ko gëm loo te fekk dara du ne ci ñoom Serigne bi nee na dañuy woote ak matuk wilaaya ak mat akuk wilaaya bu ko defee la ñuy jommali nit ñi mooy ay nettali boo toogee ñu lay gëlëmal lu ne danañ ko wax lu ne danañ ko làkk waaye dara ne uuf la yées ci ñoom nag mooy wa in madaxta indahu cheykhan siwa axaasahu li hasadin wa hubbi jaa koo ci toogal di tagg keneen beneen sëriñ nga gis ki ñaan gi ne ci moom ak bëgg daraja gi day tax loolu da koy metti pour pourquoi nga toog ci wetam di tudd keneen te moom mu ne fi waaw bu sañoon moom rek ngay tagg waaye doo tagg keneen ci wetam te nag safaan ba it da koy bégloo mooy boo ŋàññee keneen ci wetam boo ŋàññee beneen sëriñ ci wetam wa haysuma taskur bi hajwin xayrahu yafrax walaw daral jamia xayrahu boo toogee ci wetam di tagg keneen koo xam ne adduna bépp xam nañ ne waa ju baax la nga di ko ŋàññi moom day am mbégte waaye noo ko noo ko noo ko waxee sax awala ah, doy na waar bi nga ne moom moom moom lii ko dal toroxtaangeem la koy yéene te ki ki mu yéene toroxtaange bëgg nga di ko ŋàññi adduna bépp xam nañ ak mbaaxam wala yasurruhu siwan firadi bi dicri wal mathi la dal ibadi nga xam ne la koy bégloo mooy jaam ñëpp maase ci di ko wéetal di ko tagg menn moom képp di ko tudd menn moom képp loolu mooy doon mbégteem waaye du bëgg ñu tudd keneen du bëgg ñu tagg keneen kooku xanaa jàngut waaye fa kullu wirdin yuridul murida li xadratillahi walan yahida sawaun intama ila al jilaani aw intama li ahmad tijaani aw li siwahuma min al aqtaabi is kulluhum xataan ala sawaabi loolu sëriñ bi doon jàngale ci ne wird woo jàpp mu àggale la ci yàlla moo xam si abdul xaadir jilaani la moo xam si Ahmad Tidiane Cherif la koo ci mën a jàpp rek mu àggale la ci yàlla xoolal kooku a jàpp ni jikko bi mu am ba wane ni foo fekk waay yàlla demal ci moom la ko bégloo rek mooy na la àggale ci yàlla kii nag moom li mu bëgg mooy nañ ko tudd nañ koy tagg rek mu ne waxay suma yemin li gayrihi abat mustarshidun yahuj xaraamahul xasad nee na ñi nga xam ne ñoo ko topp saa bu ko fa kenn bàyyee dem seete beneen sëriñ ne man kat li ma doon seet ci moom gisatuma ko da gis mu am naqaru xol te moom dafa ñëw di naan si fekk na amoo ndox mu ko màndal mu bàyyi la fa seeti feneen yow bu la wóoree ne fa mu jëm mën na faa mande rek santal yàlla te bég ci moo tax sëriñ bi naan tabban lahu fa innahu law qasada salaaha amrihi faqad mujarrada la sarrahu husuluhu haysu qasad wala yubaali birtihaalihi abad su fekkonte ne ñi ko topp daf leen a bëgg a defal rek defar seen biir defar seen bitti àggale leen ci yàlla ku ko wan ginnaaw te jëm foo xam ne wóor na ko ni boo demee da nga ko fa amee loolu da cay bég waaye du ci amu naqar mu tegaat ca ni fa kullu cheikhin hakasa fa innahu min saaidil xutaami fatruk shanahu bépp sëriñ boo gis ne nii la mbiram demee wàcc ko te xam ne du kenn bépp sëriñ boo gis ne nii la mbiram demee suñ tubaay wax waccel mbiram te ne du kenn wa kullu man raayta yastaalul abid minal mashayixi fa daahu yaa murid bépp sëriñ boo xam ne da nga koo gis mu jàpp ne bu nit ñi toogee moom ci suuf daa war a ñëw toog ci kaw wala bu ñu fekkoon fii tey mu jàpp ne basan gii ñu toog moom jomb na cee toog ba tax mu war a jaarale dallam yi ci kaw basan gii ñu toog di jàll maanaam ngir jàpp ne daal moo war a kawee ñëpp nee na bàyyil kooku te xam ne du waaja kooku du kenn loolu loolu waxi suñ tubaab fa inna fadla allahi laysa muxtasar yutihi man yashauhu min al basar ngëneelul yàlla ku ko soob la koy jox nekkul ci askan nekkul ci sant ngëneelul yàlla ku ko soob la koy jox wa baaduhum taraahu sa taamumi mutawija rësi maa talasumi nee na am na ci ñoom nag sëriñ si ñoo xam ne da nga leen di gis foo leen fekk ñu ngi kaalaw gis nga ni mu léegi kaala gaa ñëpp dañuy kaalaw gaa ñëpp nee na am na ci ñoo xam dañuy suumu nga xam ne seen bakkanak ak seen ñaari bët képp mooy feeñ nee na tashabuhan bi roasa i saalihin ngir nuru nuru lu gaa yu baax ya man hammuhum ridal jalili kullahin gaa yu baax ya nga xam ne seen yitte moo doonoon ngërëmul yàlla jamono ñu nekk ngërëmul yàlla rek lañ doon sàkku ñoom wa yaskurullaha kasiran bil lisaan wa qalbuhu adnasu min kulli janan nee na muy nuru nurulu gaa yu baax yooyee foo ko fekk mu yor kursam di tocc tocc di tudd ci làmmiñ wi mel na kuy sikkar te nee na boo demee ci ab xolam moo gën a tilim bépp xol wa yuzhiru zuhda mi walam yaqsid bihi si waqati naasil jaahi faltanta bihi mooy wane ak dëddu nag ak dëddu di solu tilim day jox gaa ñi rendez-vous ba ñëw na talaata ci ngoon na fi ñëpp daje mu génn soli sagar fekk maanaam neen lam ci jublu mooy rëbb daraja bëgg bu génn ñu gëm ko ne oh ak dëddu àdduna gisoo suñ bi lim sol mu yëgu ko fekk moo ko jublu moo ko jublu loolu suñ tubaa jàngale woon na ko wa yaddaci baada shuyuxi annahu laa yakulu zara wa yaxfi sha'nahu wa yuxfi sha'nahu nee na am na ci ñoom ñoo xam ne dañ naan ñoom duñ lekk am mbay maanaam dañoo toll ci étape boo xam ne duñ lekk luñ bay am na ci ñoo xam dañ naan duñ naan soow am na ci ñoo xam dañ naan duñ lekk jën am na ci ñoo xam dañ naan duñ lekk lu am ruu loolu lépp da nga koy gis ci gaa yi ci ñi nga xam ne ñoom la ñu woowee sëriñ Sëriñ Tuubaa ko wax nee na tashabbuhan bi man yujaahiduuna nufuusahum wallaaha yaqsiduuna di nuru nuru yi nga xam ne dañ daan jihaat seen bakkan wan ginnaaw yooyu yëpp nag ne ci àll bi di muuc ay xobi garab lu ne waaye ngir toroxal seen bakkan ñoom ñooñu la ñu nuru nurulu nee na wa annahu law jaa wa nuxaala xaaliyatan daraama hatruk haala nee na ko kii naan du lekk du lekk am mbay wala du lekk lu am ruu nee na bu xiifoon nga tëj ko ci barab moo ko cox boo tijjee doo fekk dara la muy wax dara wéru ci mu ne walay sa yadri anna akala zar'i ma al mala la lahu fi shar'i te xamul ne lekk am mbay ànd ak nit ñi lool aw tagg la ci lislaam aw tagg la wa baaduhum taraaxu samtinaa'i min nasari niswaani saaqinaa'i nee na am na ci ñoom ñoo xam ne da leen di gis ñu ne ñoom duñ xool jigéen boo leen gisee dañuy sëgg léeg gis jigéen ñi di ko eh diw du siggi xool nit loolu du dara du siggi xool nit na dëggu ca xool ba rek sëriñ mi neen am na ci ñoom ñoo xam ne lool lool la ñuy wax dañu duñ xool jigéen daan tasabbuhan bil ulama il awrain al aamilin al xaashiin al aadalin ngir nuru nurulu borom xam-xam yi nga xam ne dañoo sàmmoon doon jëfi seen xam-xam ragal yàlla boole kooku maandu ñoom ñoo daan def noonu léegi nag ñooñ tey am na ci ñuy nuru nuru lu ñooñu te wa annahu lawlaa uyuunu naasi la raamahunna bi zinan aw faasi nee na bu dutoon ak bëti nit ñi koo ci tëjewoon ak jigéen mu sàkkoo njaaloog moom bu mañee ba ñu ci bu dóor ko aw sémmiñ loolu ay xeeti sëriñ la yoo xam ne sëriñ bee leen jàngale woon ne ñii danañ am jëmmi jamono boo ko sëriñ bi waxee nag du tey te tey ñu ngi koy dund mm-hmm. kon day mel ne sëriñ soo yi nga xam ne ñoom la sëriñ bi jàngale woon nga xam ne day foo leen fekk ñu ngi suturlu ci seen muuraay yi mm-hmm. wute lool mm-hmm. bari ay xeet bari ay ay ay ay ay ay ay ay melokaan ñoom ñëpp benn objectif lañ am mooy rëbb alal rëbb daraja fexe ba lañ soxla ci seen xeememtee fi adduna ñu am ko lañ bëgg seen bànneexu bakkan ñu am ko ñooñu nag sëriñ bi waxoon nañ nañ leen wattandiku nañ leen moytandiku kon nañ leen di wattandikoo te moytandiku leen mooy nee na la woon wala takun multafitan li kulli man raaytahu yusbihu cheykhan fii saman def koo gis mu sëriñ rek nga topp ko nan ko dégg sëriñ bi nee bul def koo gis mu nurub rek wala mu ne ab laa wala mu ne sin diwo ma wala mu ne nangam laa man wala mu ne la diwee saa baay wala mu ne la ci askan sàngam laa bokk ba tax nga topp ko demeewul noonu fa laysa kullu ma mu daw waran kaa kan wa laysa kullu daw in xamara nee na du ceegi ne loo gis mu ron rek nga ne aw miskit la jaan bu meree dëgg day ron boo ko fekkee nag ba jàpp ne aw miskit la boo ko laalee mu doon sa musiba kallaa wa laysa kullu ma in salsabil wa laysa suhdin misla saabin yaa nabil nee na du ceegi ne ndox moo gis rek mu mel na ndoxum keneen mu neex mu sell mi déedéet am na ndox moo xam ne neexut sellut du ceegi ne xëbbu lem waa gis rek dégg nga mu mel ne li ñuy wax garabu saab lem wute naa moom am nañu koy firee xeetar wala sa kulluma fi layli naairun bi hastilaa u man yusaafiru nee na bul def lépp loo seen muy leer guddi nga jàpp ne sawara la woo xam ne eh, tukkikat bi réer da caa war a dem gindeeku loolu baaxum arab yi la ñoo daan def bu nit bari lee bu bari alal ci tund walay dëkk bu nit néewee doole ba mel na ñun dëkk ci xur wi ka dëkk ci tund wa su guddee day taal sawara doxandéem yi bu ñu ko gisee te ñëw fa gindeeku mu jox leen ñu lekk bu xamee fa njëm mu tegtal leen ko waaye amoon na ku ñuy wax ashabu tamma loolu loolu loolu la gis genn guddi ne fee moo fa demee yaakaar naa dinaa fa gis nit ba yàgg am lu am am lu koy xeeñ mu ne ndaw la may xeeñ fekk giir gi mu bokk am na ñu ci doon rey ay nit ab lim boo xam ne ñoom la ñuy lakk te manqué nañ kenn bi mag see yem ca nag jàpp ne sawara la mu waroon a jariñoo ñu sànni ko ci biir sëriñ bi nee na sëriñ bii nag innahu daallun mudil bépp sëriñ bu mel nii ku réer la kuy réerale laa yasilu walla yuusil aggut ca yàlla te mënta àggale kenn ci yàlla yëngalkat yépp ñoo bokk loolu kon melokaan yooyu ak jikko yooyu nga xam ne euh, yóbbe na maanaam li ñuy wax xam la anifa maanaam dem na ba am ñoo xam ne tax na lu ne ñu di ko wax yoonu murit lu nañu di ko ko ŋàññee eh, loolu wax dëgg yàlla wute naag li nga xam ne moo taxoon ki ko sos ñëw wute naag li nga xam ne moo taxoon ki ko sos doon ko fi jële te mooy li ma waxoon ci njëlbéen te Serigne Moussa Ka indi ko léegi jamono jii nag ñi ngi jëflanteeg eh, yoonu murit ci seen lisaanul xaal li ñuy wax alxarbu xudaa day mel ne ñi ngi waranteeg ñoom dina naxanteeg ñoom nañ ko bàyyi xel mm-hmm. su ko defee sëriñ sëriñ sëriñ Lamine xam naa damaa jàpp ne faaw dañuy tënk foofu suñu kàddu ngir loolu doy na sëkk am nopp sa ci tomb bi nga xam ne moom lañ doon waxtaane waaye ñu bàyyi xel ne daal kuréel bu mujj bi man moom ci gën a yitteel mooy ñi nga xam ne ñi ngi dévier nit ñi di di leen yóbbu ci ay caaxaan te fees dell dell dell dell réew mi yàlla dogal na Touba bëri wuñ fi doon ndax Touba moom li ma waxoon léegi maanaam ñi fi nekk dañoo dëgër bopp maanaam dañoo xëy junne ju mag ñele ju leen maanaam devis yi leen yombut waaye génn nañ wër wër wër aneer yi ñu ngi ci régions yi ñu ngi ñu ngi Ndakaaru ñu ngi génn di dem ba Europe fu ne ñu ngi fay dem waaye nag di yóbbu ay image yoo xam ne baraana kuy wax ci yoon wi loo xam ne du noon a fekk ci ñoom rek lay sukkandiku te tasee wut ak njàngaleem sëriñ bi mm-hmm. loolu nag sëriñ Moustapha Lo waxoon na ni sëriñ bi ne woon na képp ku jóge ci man dem ci barab ñu gis ci yow lu tax ñu may xeeb loolu tooñ nga ma ne du la ko balaaq loolu kon ñoom nañ koy bàyyi xel yàlla nañu yàlla defal ak dégg ku topp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf sëriñ Seexuna ci kàddu yu am solo yooyu nga xam ne andil nga ñu ko tey ci tomb boobu nga xam ne mooy yoonu murit ak fii ñu tollu tey mu mel ne tënk nga ko ci tënk bu ama am solo tënk nga ko ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam fa mu tënkoon sëriñ Touba mu nangu coowoon a tënku tënk ca ay ñoñam tënk ca ay ànd ak ñoom di dox ca loola ba nim fi jógee ñu des fi loolu mooy tomb bu njëkk ba tombum ñaareel bi bim ñu fi bàyyee tam am na ñoo xam ne nii nam fa mu tënkoon boppam tënkoon fa njabootam tënk fa ay taalibeem fa lañ tënku muy saabiqun bil bil xayraati wa saabiquuna saabiquuna ulaayka al muqarrabuun waaye beneen kuréel bi itam dafa mel ne la leen Sëriñ Tuubaa tënkoon dañoo dem ba ci digg ba ñu teg fee benn tànk teg fee benn tànk ñooñu nag maa ngi leen di ñaan ñu delloo seen beneen tànk ci fa sëñ Touba tënkoon taalibe beneen bi ci des nag dañoo génn daaira bi nga xam ne nii ci la sëñ Touba tënkoon dem ci biti di réerale kuréel boobee nag nee na moom mooy kuréel bi ko ci gën a ñor kuréel boobu nag ay bunt lañ yoo xam ne nii képp kuy attaqué lislaam ci bunt yooyu ngay jaar wala yaasu te loolu ñoo bari loolu ci yoon bi kon sëriñ bi bu ngeen dégloo li mu wax da ku nekk di nga xam sa tànk fi nga koy teg ñetti kuréel yi mi ngi noonu kuréel bu njëkk ba yàlla nañ ci yàlla boole ci barke Serigne Touba loolu moo nekkoon seen émission jotaayu murit ñu ñëwoon fii tey kër bu sa Bousso leen ànd ak moom ci toom bu am solo boobu li leen dig daje ba beneen yoon incha allahu wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh bay weerante dig maasam téere ba di waxtaanam loolo moo defoon xaasam moo defoon xaasam la